Fora, yo, Namaliko. Hey, yo, my man, Shy, what's up? ñu ngi ziar ngeen ñu ngi béggee béggee béggee xam nga heure de crime ñu fël génn def affaire jikko rappeur quoi waxtaan ak sénégalais yi xam naa ne instant yi moom ne ni lañuy la kepp ci mbedd mi quoi sino ñeneen ñi moom ñenn ñaa ngi slip ñenn ñaa ngi doxi xam nga ñu ngi si taatu caga ji di jaaru quoi mais du tee nag xam nga street niggas dinañ ko teewal ci mbedd mi muy góor di jigéen mag ak ndaw ñu leen di bëggee bu wér ah ñoo di waxtaan ak yéen rek ci tolluwaayu réew mi ak li nga xam ni bandi salte yi ñu ngi koy waajal saa su nekk rek lu am rek dinañ ñëw aviser leen yéen tamit ngeen xool nu ngeen di waajale seen bopp parce que tamit ñu ko sekkal du ñuy gaaw a bàyyi ñu ko sekkal tamit aussi bu ñu màttee dañ naan day dagg. donc euh, boo ko sekkee ku mel noonu foog nga yokk cere doolu ñeex am sa fulla ak sa fayda sinon da ngay ñàkk waa di leen waxal ni nag gis ngeen le juge saaba si atte na ci loi atte na ci droit atte na ci démocratie atte na ci dëgg waaye ñoom normalement vendredi lañu waroon sax joxe fiche yi waaye joxe wuñ ko vendredi donc nee nañ lundi la dem récupérer ji ko waaye ñoom dañoo jóg te bañ a jox fi fiche yi dañoo jóg parce que comme ni ñu yàggee jalgati yoon dañoo décidé waat bëgg a jalgatiwaat yoon bi comme lënd bu ñu demee yónnee ki nga xam ni moom mooy représentant Ousmane Sonko mu war a dem jël fiche de parrainage ñoom dañoo waxtaan ne dañoo décidé bañ ko ko jox comme quoi que ñoom aussi def nañ appel te tant que appel baa ngi daw euh, gars yi amuñu droit jox leen ay fiche donc moom loolu loi waxu ko droit waxu ko dara waru mun a suspendre li nga xam ni juge bi wax na ko ne delloo leen Ousmane Sonko ci biir liste yi am na ci droit am yoon loolu la wax donc dañ ko war a delloo turam ci liste électorale yi te jox ko ci fiche yi mu dem yoonam loolu la droit wax loolu lañ mujjee àtte kon pour l'instant loolu lañ war a def ña nga nag bëgg a def yëfu bandi bugg lëndi bu demee représentant Ousmane Sonko bu ñu ne duñ ko ko jox parce que ñoom def nañ appel te comme appel boobu guñ ko donk ba léegi pour yeexal affaire fiche de parrainage yi defaat lu salte nag parce que ñi ngi ko bugg a yóbbu euh, dañu bëgg a kase affaire bi dañu ko bëgg a yóbbu cassation mooy seen kii yooyu seen tribunalu fàqmaan yi te foofu yit ña ngay waajal bu fa yeggee ñu rejeté waat affaire mbir yi parce que tant que ma ngay dakaar di demi Dakar rek foofu moom musiba naaru laay moo fay am te ña nga ñi nga teg ay plan bañ a jox Ousmane sunk ay fiche loolu nag sénégalais ñoo am seen fulla xool lan mooy solution bi ñun solution lu ñu xam moom mooy xeex man boobu rek laa yor aw beneen donc cour suprême boobu ñu foofu noonu ñu amoon défaite ba ñu tey jaay yëfu bandi tooñ Ousmane Sonko ñu yóbbu ko Casamance ñu retourné waat ko bu ko delloo cour cour suprême ñene woon cour suprême benn gang boobu rek ñoo fa nekkaat encore ña waajalaat encore bu comme indi nañ ko cour suprême ñu rejeté waat ko donc loolu moo tax dañoo décidé bañ ko jox kii ya noo du cour suprême Ziguinchor cour suprême Dakar la nekk cour suprême Dakar la nekk nekkul Ziguinchor donc Dakar la ñuy yóbbu mbir yi ñooñu ñooñu ne woon Ousmane Sonko génne nañ ko ci liste électorale ya rocc nañ turam fa lay delluwaat fa lay delluwaat encore mais Macky yamu ca ma ngay waajal yónni bandi salte yi nga xam ni ñi ngi nekk ci administration justice bi pour ñu dem fële ca Ziguinchor euh, fuye ji ki nga xam ni mooy saba si fay fuye ko xool ay yenn mbir yéeg yu ay affaires yu ñu ko bëgg jiiñ donc Macky Sall fu nekk nii sabasi boobu fay la bëgg a def noonu jóg na nag jóg na def na ci réunion dajale na ay nitam nee nañ incha allah à partir de lundi danañ dem Casamance ca sabasi fay dugg denne dañuy génn ay mbóota yu kenn xamul ne si ñëpp xam nañ ku set la ku maanu la ku noppi la toroxal gañ ko doon jéem mu sa toroxal yëpp mu mujjul sotti parce que ñun yaakaar naa ni jën ku koy tëmbal ci ndox doo ko toro toroxaloo ko da nga koy dundal ñun ñi ay nitu région lañ ñun nga génne ñu Dakar yóbbu ñu ay Ziguinchor rek Matam yi Podor kooku ñu mbégte la ñun parce que <laughs> man lu ma loo ma mun a defal yóbbu ma Kaolack victoire la ci man man Kaolack laay nokkee mooy sama dund falaa bu ma deewoon fii sax Kaolack lañ may yóbbu ba pare doog ma yóbbu fu ñu may suuli ji donc Kaolack mooy sama dund donc man jël ma sànni ma Kaolack toroxaloo ma c'est que ñoom gouvernement bi dañu bëgg a def comme quoi que région yi ñooy dëkk yu torox yi région yi ñooy tekkul dara donc boo bëggee toroxal ab administrateur bañkat da koy yóbbu ci région yi loolu nag wane na ni rek ni ñoom amuñu benn politique de développement bu ñu jéemal ci région yi dañoo jéem a toroxal région yi ba ñu torox nga xam ne ñoom bu ñuy jëlee bu ko toroxal nit dañ koy sànni ci région yi donc yaakaar naa ni saaba si moom euh, fay bokkul ci ñi ñuy toroxal di yóbbu ci région ndax ku juddoo Gànjaay màggee Sibassor hmm, <laughs> ca Kaolack kooku yaakaar naa ne boo ko yóbbu feneen foo ko yóbbu it foog nii di nga ko toroxal ko parce que day mel ni jën bi nga sànni ci ndox ñun ñi ku ñu yóbbu ci région yi vraiment toroxaloo ñu région rek lañ xam fa lañ màggee fa lañ yaroo te dara dàqul euh, Kaolack dara dàqul Ziguinchor ñoom dakaar lañ koy yóbbu yóbbu ñu ko cour suprême bu Ziguinchor Dakar lañ koy décider yóbbu dama leen di ay information rek laa joxe Dakar lañ jéem la ñuy jéem a yóbbu affaire ba jóge na Ziguinchor ña ngi koy yóbbu dakaar te cour suprême ba foofu lañ koy yóbbu léegi nag ñoom tamit ña ngay waajal envoyé ñi nga xam ni mooy euh, le euh, euh, le juge Saba Sifay ña ngi koy jéem a yóbbul yónnee inspection générale ne comme ni ñuy saytoo ay sàcckat wala luubalkat ñu nee nañ dañ ko à partir de lundi danañ ko yónnee de inspection général de l' de la justice pour mu fóoyate ko donc ngeen bàyyi ci xel may ñaan sénégalais bu leen seetaan mukk Macky sàll jëlee fi saaba si bu leen seetaan mukk Macky Sall toroxal kii nga xam ni mooy saaba si saaba si buñ ko xamee yàgg na ci justice bi booy bu ndaw la mais buñ ko xamee c'est vraiment affaire wu mooy premier juge bu dawal dëgg ci l'histoire de Ousmane Sonko depuis l'existence de Ousmane Sonko depuis que Ousmane Sonko existe la première personne bu àtte Ousmane Sonko ci dëgg saa aussi la l'histoire retiendra donc loolu sag bu rëy la lu mag la lu rëy loo xam ni c'est la première fois dans l'histoire ab doomu aadama boo xam dañ koy persécuté bu boobu ba léegi depuis bu ñu ko dàqee ci administration ñu ngi koy persécuté c'est la première fois ab doomu aadama ñëw ne bàyyi leen jàmbur ki ngeen di wax nii da ngeen ko tooñ donc ñun aussi en tant que sénégalais bu ñu seetaan mukk ñuy tëral suñuy leader ñuy tëral suñuy ndaanaan ñuy tëral sa ñu yàlla may ñu tëral suñuy nitu dëgg di leen tëral di rendi lool rek laa leen di ñaan Sénégal ngir yàlla lillahi wa rasuli bu ñu kenn tàmmal ñuy nangu injustice bu ñu kenn tàmmal ay doomu aadama yu xeex pour ñun ñu leen di tëral ci suñu kanam di daas paaka ci suñu kanam di leen rendi di tàqale seen bopp ak seen baat te ngeen fekke ko surtout nag bu fekkee ni ñoom yéen lañ jox ndam la yéen lañ teewal yéen lañ xeexal dëgg lañ xeexal ba ngeen gis ci seen bopp donc buñ ko songee da ngeen war a taxaw devant wane ni carrément kii dëgg la àtte duñ seetaan benn yoon ñu koy tëral di ko rendi kon loolu di leen wax ngeen waajal ko di leen wax ni it waajal leen dara bu leen nalaw ci mbir yi waajal leen mbir yi dama ne makki sàll ba léegi bàyyiwul plan de liquidation boobu la ma waxoon démb ak bërki démb nee na mooy waxu tayam mooy Ousmane Sonko du dem ci élection yi loolu Macky sàll moo ko wax moom moo ko wax xaw ma nag ba xam mooy papay sénégalais yi xaw ma ba xam moom dañ ko baayam moo ko bàyyil Sénégal xaw ma ba xam yaayam moom moo doon da ko donn ci ndeyam ci ay nàmpam waaye moom ba léegi ca la mu taxawoon jógu ci ne Ousmane Sonko du dem ci élection yi bi nag nañ am fulla bu day ni bu Macky Sall taxawee mu Macky Sall taxawee ne ñoom euh, Ousmane du dem ci élection yi ñun peuple bi ñoo ëpp Macky Sall fuuf gën ko ndey gën ko bàyyi bu ñu amee ful la bu day ni ñun tam taxaw ne day dem ci élection yi yaakaar naa ni ah loolu war na mun a yàlla mun nañ ci defal ndam mais bu ñàkkee ful la du dem ci élection yi parce que moom ba léegi wàccul jogul wàccu ci jógu ci parce que même ñamay informe dem ak tey bu mu waxee Ousmane Sonko ne non ko Ousmane booy gars yi ba léegi bàyyiguñ de nee nañ Ousmane Sonko du dem ci élection yi Macky Sall foofu la jàpp la mu jàpp ba léegi nee na Macky Ousmane Sonko du dem ci élection yi donc waa ji wurul justice wurul loi wurul règlement wurul démocratie donc moom dafa matt ne Ousmane Sonko dem ci élection donc noonu bu ko jaralee benn rek nañu jaral fukk bu ñu jaralee fukk yàlla mun nañ defal ndam donc nañ yokk fulla nañ yokk fayda ñu gëm ni moom bu jàppee ci dara benn nit bu jàppee ci dara matt ne du ko bàyyi yaakaar naa 17 millions de Sénégalais bu ñu jàppee ci dara yàlla mën na leen ci defal ndam donc nañ taxaw fu ñu taxaw juge bi saaba si lu mu def c'est normal et puis loolu aussi lii nii euh, Macky Sall di yónni inspection général euh, de l' administration euh, de la justice loolu sac la ci Ousmane Sonko parce que gis nga si Sabassi luñ ko dara nekkul ci ay dara sàccu fa triandewul deful tous kon donc kooku bu ñu yóbboon cent mille jinne ñuul amul luñ ko mun a toppee amul luñ ko mën a toppee donc Sabassi tiitu ci ragalu ci ay ree sax la ko def xam nga ni détermination bu saaba si am di juger di juger di juger di temps neuf neuf heures ci suba ba vingt trois heures ba ñuy couper ay làmp muy jël ay torche di teg di jël ay portable am di taal lampe xam ngeen ni kooku ku am kooku benn xeetu Mollah Morgun la boo xam bu màttee moom tam du bàyyi donc ku tiital saaba si rek da xamul kan mooy kooku kooku nit yooyu dañoo raar Sénégal nit yu am ful la am fayda mu jaral leen àdduna ak li ci biir ñu jël seeni ñu jël la loi teg ci seen bakkan ragal yàlla teg ci seen bakkan mu jaral leen lu ne donc xam ngeen ni kooku ki ñuy couper ay courant di ko diin naan ko ay am nga frère ak ay am nga kii bu bokk fële ay frère bu juróom-ñaari sa frère bi am na benn xarit bu mu am bu nekk fële juróom-ñaari wala numéro nangam fii ministre boo fi gis doomam Ousmane Sonko la député boo fi gis jabaram am na jabar Ousmane Sonko bu far maire boo fi gis boo defoon naa yaayam walla papaam Ousmane Sonko la bëgg donc kër goo dugg kër goo dugg am na ku bëgg Ousmane Sonko kër goo dugg kër bu bu jabar ji di gel ba wala doom ja wala papa ja wala yaay ja wala maam ja parce que am na kuy xeex injustice loolu moo ko booleeg Ousmane Sonko maanaam koo xam ne buggul injustice loolu moo moo ko may cofeel gu mu am ci Ousmane Sonko donc amul kenn koo xam ni dañ koy toppee parce que waroo atte parce que sa frère dama ne fii kuñ fi topp sa njaboot génne kenn ci ku bëgg Ousmane Sonko amul benn kër famille lëmb bu amul ñu bëgg Ousmane Sonko wala ñu topp Ousmane Sonko wala ñuy Pastef amut Sénégal amul kër goo dem ñëpp xam nañu sa waay ceeb la ñuy añee Sénégal gis nga nu ñu xamee ni ceeb la añee noonu la xamee ne amul kër gu amul Ousmane Sonko. lenn moo ñu mooy suñu problème kër ko kër gu amul Macky Sall xëy na loolu am na mais kër gu amul Ousmane Sonko loolu existé wul Sénégal ak boo wëree kër yëpp ba mujjee amul benn kër booy dugg fekk fa ñëpp nekk Macky awut amut existé wut donc tey jii bu dee dañuy xool ay parenté kenn waru àtte ndax juge yii di àtte juge yii di àtte nii di defal Macky li mu bëgg ñoom seeni mbokk yëpp bëri na ñoo xam ni waa APR lañ te chaque jour ñu wax ko fii kon xanaa Hamady juuf warul àtte Hamady juuf xanaa warul àtte te mu nekk sur cour suprême Hamady Diouf ak Macky Sall ñoo nekkandoon Kaolack ca samedi ñoo fa màggandoo ñoom ñoo doon naanandoo ataaya ca saam muy doomu ndeyam ñu màggandoo foofu <laughs> wala ñun loolu waxuñu leen ko Abdou Karim Diop bi tëj Ousmane Sonko jiiñ ko di n'importe quoi mais ñëpp xam nañ ne Abdou Karim Diop booy Hamadi Diouf la xanaa yow histoire yooyu expliqué leen ko fi waa Kaolack la di waa Coofak la xanaa kon kooku warul àtte kon kon nañ génn Ousmane Sonko mu ñibbi këram ki ko àtte kooku kooku fenal ko noonu sosal ko ba dugal ko foofu kooku <laughs> fii su kan la fii su kan la ki àtte Ousmane Sonko bari ki démb fii fii su kan la du <laughs> génn ñu ne doomu ndeyu Doro Gaye la moom Doro Gaye ñoo ne suba ngoon guddeeg ba waxuñu ko fii ban juge moo fi nekk te amul xarit ci administration wala frère am wala sœur am kan la wax leen ma kenn. Hamady Diouf doomu ndeyu Macky sàll la ca Saam ka Saam la dëkk ba léegi papaam ak yaayam ca Saam lañu dëkk même quartier bu Macky Sall màggee ñoo doon naan doo ataaya <coughs> alors ki nga xam ni mooy Abdou Karim Diop Toofak. nekkoon euh, si sa sëru topp ci euh, ci ci Hamadi Diouf waa ñi àtte Ousmane Sonko ñooñu ñëpp dañuy nekk ay mbokk Macky Sall wala xaritu Macky Sall wala ay nitu Macky Sall ñooñu war nañ àtte Sonko mais képp koo xam ni yow euh, am nga frère bu nekk Pastef wala doomu ndeyam wala génn wàllam wala juróom-ñaari maamam donc ñooñu nu àtte Sonko daal comme naa Sonko daal mooy kumba amul ndey daal. te ñëpp xam ni Issa Ndiaye ñëpp nañ doomu nday Doro Gaye la te moom mu àtte ñu wax ñu wax ki nga xam ne mooy agent judiciaire bi ma dambal jaañ day naan day génne ay mais Hippolyte Ndeye ak ki waroon àtte <laughs> buñ menacé wuloon doo bàyyi ko ki war ki juge boobu buñ ko génnewu génnewuloon day daw buñ ñu génnewuloon da koy àtte pression bi ëpp ci moom mu daw kon yéen ñun lan moo tax ñun ñu mel ni ay kumba amul ndey ci réew mi Macky Sall daal mooy kumba am ndey Macky Sall mooy kumba am ndey moom ay doomu ndeyam ay xaritam ay genn wàllam ñoom dañuy àtte Sonko dañuy àtte Sonko ñoom Bassirou Gueye nekk fi ñoom mun nañ dem àtte Sonko kon ñoom euh, ki nga xam ne moom mooy Omar Maham Diallo di seen fils moom day àtte Sonko ki nga xam ne moom mooy ñoom euh, euh, Hamadi Diouf di doomu ndeyu Macky Sall day atte Sonko donc Abdou Karim Diop di doomu ndeyu di fiisu Hamadi Diouf moom moo ko def lu ma moom day atte Sonko mais kon kenn koo xam ne yow sa juróom-ñaari maam mus na bëgg Sonko waroo atte sonkoo daal c'est que benn instant aussi qu'on le veuille ou non on trop faire loolu moom nañ ko nangu ñi nekk cour suprême yépp yépp ay doomu ndeyu Macky Sall lañ amul ku fay taxawaalu yoo xam ni yaa ngi def sale boulot te neewoo doomu ndayam ñoom ñëpp lañ wutal ay kër boo demee Saly bu dem ca somo nag ca géej ga foofu kër yi ngand lañ am foofu lañu nekk di concours kër gu gën a rëy ñoom ñëpp lañ jox ay kër fa lañu nekk nii ñoom weekend yëpp ñu ngi foofu ki fi tëral Ousmane Sonko bërki démb fii rendi ko te pourtant yaayam bu mu feebaree jabaru Ousmane Sonko ko doon toggal góor jigéen boobu <laughs> alors xanaa kooku waru àtte Sonko ba mu fi génnee di fenal Sonko ko sosal Sonko et pourtant gisoo nu mu jegee fami Sonko mais bu mu desee lu dul saal buloo wanewul sax ni xam na Sonko ah et pourtant yaayam ba mu feebaree nekk ci lal hôpital di waaj de dee kër ñoom Sonko ñoo ko doon waajal frère am doomu ndey Sonko la ñoo jàngandoo université ca Thiès ca Thiès Thiès googu noonu Ousmane Sonko yaa gën a toog buntu këram di fa naan ataaya ak frère am mais kooku moom war na mun a atte daal donc daal ñoom daal ñoom ñoom moom nit yi daal ñoom ñoom moom nit yi ñoom mun nañ atte Sonko mun nañ nekk doomu ndey Macky Sall di atte Sonko Ibrahima baaxum góor jigéen Ibrahima baaxum góor jigéen. mais Sonko la gën a jege ka Macky sàll te bërki dem fii la taxaw yàq Sonko nekk yàq bu naqari jiñ ko terroriste jiñ ko lu ne atte ko ci lu na si dul mel lu ko ko musul xam et pourtant ndayam lu mu mujjee lekk ci biiram lu mu mujjee dugal ci biiram avant moo de kër ñoom Sonko lañ ko toggee frère am bu mbokkal ndey ak bàyyi di doomu nday Sonko <laughs> dégg ñoom daal ñoom mun nañ atte Sonko ku leen ku mu neex daal mun na atte Sonko mais bu dee Sonko la kenn koo xam ne xam na bokk na Pastef wala ndeyam bokk na Pastef wala baay bokk na ba warul àtte Sonko daal non gars yi moom nañ ñu nag képp ku ko ragal a wax non sa tàppet double tàppet gars yi moom nañ ñu nag moom nañ ñu mën nañ moom nañ réew mi ñoo koy décider ñoo ciy wax ñooy def lu leen neex ñooy imposer pour seeni agent judiciaire ñuy fen wut seen ñi ne kooku waru atte ndax juróom-ñaari maamam ak benn xaritam wujju peccor goom doomu ndayam euh, magam moom euh, passif la bokk te képp ku atte Ousmane Sonko waxal ko lu ñaaw wala lu bon ci Macky Sall nga ne am ngay lien ak moom wala sa nit am na lien ak moom mais c'est catastrophique dans ce pays là on a laissé trop léegi nag bu leen nalaw suufoo laurier dama na ngeen waajal seen bopp taxaw leen waajal leen seen bopp nu ngeen di waajale seen bopp mooy bu leen nalaw de gaa yi jóguñu ba léegi ci fu ñu taxawoon ŋànkiwuñu lu ñu jàppoon lu ñu jàppoon mooy nee nañ Ousmane Sonko du dem ci élection yii teggiwuñ ko de dindiwuñ ko de bàyyiwuñ ko de yëfu bandi yi lëndi lañ ko bëgg a commencé jëli parrainage ba ñu ne duñ joxee paranage jaayum doole buñ ko defee loolu Sénégal war nañ mën a xam ni waxtu nag jot na parce que juge bi nee na nañ delloo Ousmane Sonko ci ci liste yi te jox ko parrainage kon lundi normalement Ndakaaru Njaay Jal Jóob bu ñu jógee di jëli pare nage bu amul dëkk dëkk bi warul selaw bu dëkk bi selawee nga xam ni kon dóoraat nañu beneen coup mortel mooy Sénégal toog nañ seetaan ñu jël justice wax ni Macky Sall ne woon moom day respecté lépp lu justice wax justice moo ne delloo nañ Ousmane ko ci liste électorale da ngeen jox ko parrainage kon lënd bu ñu ko deful ngeen xam ne nag gars yi ñu ngi jaay ba léegi bandi parce que même nga ñu ñoom ñu demander pour ñu juger waat que ne veut pas dire que donc gars yi loolu mënul kase di leen waxal ni ngeen xam ni fulla rek moo ñu mën a may ndam fulla moo ñu mën a may ndam buñ amul fulla duñu am dara sañuy joie day éphémère ak sañuy joie day gàtt tàkk-tàkk pétard tàkk-tàkk pétard lay doon la parce que dara gënul nekk sacrifice saba si ak lu mu def yëpp atte ci dëgg ne delloo leen Ousmane Sonko ci loi yi delloo leen Ousmane Sonko ci liste électorale yi lënd ñu war a dem jël parrainage ñu ne non duñ ko ko delloo donc ñooñu saaga nañ peuple saaga nañ le juge saaga nañ justice pour un première fois ñu àtte dëgg donc on doit saisir dëgg jooju téye ci bu baax ne duñ ko bàyyi dëgg bi ñi ngi doo ko am dëgg depuis la nuit des temps ñi ngi doo ko am dëgg ci justice ci loxo justice te justice jamono jii dañoo nekk di waajal fipp mais bu leen peuple bi jàppalewul duñ jóg c'est la première fois dans l'histoire de la justice sénégalaise depuis Macky Sall toog fi ba léegi ab juge jugé ñi saaga justice bi justice bi génn ñoom magistrat yi seen mou association seen mouvement yooyu génn bind benn communiqué di fayantoog ki nga xam ni moom mooy agent judiciaire mooy Madambal Diagne mi ngi doog am dans l'histoire administration justice bi magistrat saa yi ñu génnee dañ doon sentir menacé par euh, waa Pastef wala Ousmane Sonko wax ak ñoom ñi ñi ñi ñuy tontonte ak ñoom boobu loolu moom miin nañ ko saa yu ñu Ousmane ko waxoon jëmale ci ñoom dañuy génn tontu def conférence de presse saa yu peuple bi wane ni ñoom ay workat lañ ay traître lañ ay corrompu lañ dañuy génn di tontonteeg peuple bi donc mi ngi doog a am justice commencé nag takk seen ndigg muy union des magistrats du Sénégal di soutenir sax seen nit mi ngi doog am kon nga gis ni ci biir justice bi commencé nañ di bëgg a teggi tànk bi leen Macky Sall teg tànk bu diis bi leen Macky Sall teg ba mënuñu siggi ñoom ñëpp ngi sëgg ñoom ñëpp seen mbagg yi daa damm ñoom ñëpp sëgg ndax tànk bu tiis bi leen Macky Sall teg ña ngay commencé nag di commencé bëgg a teggi tànk bi kon bu leen peuple bi dimbalee tuuti rek ànd ak ñoom rek dañuy kàjji tànk Macky Sall bu fële sànni ko ca xaj parce que commencé nañ cee bëgg a jóg comme c'est la première fois dans l'histoire te loolu neexul Macky Sall union des magistrats di Sénégal bu taxaw naan eh saaba si lu mu àtte dëgg la bàyyi leen ko bu ko kenn xas bu ko kenn nangam ba pare di attaquer euh, euh, agent judiciaire bi de l' muy Madambal Diagne ak les avocats de l' état mi ngi ko am donc am leen fulla ak fayda bu day ni ñu topp ci mouvance boobu bañ ko bàyyi soutenir la justice la vraie justice on parle pas de justice fausse boobu noonu bu Macky Sall bi la vraie justice la la euh, ñi nga xam ne ñuy àtte dëgg bu ñu leen seetaan ñu leen di fagaagal bu ñu seetaan ñu leen di rey bu ñu seetaan ñu leen di toroxal nañu yokk fulla le peuple sénégalais dafa war a wane beneen visage visage yu fulla visage yu fayda loolu ku leen ko waxul da leen di nax peuple sénégalais bi war na leen fulla wane leen fayda wane leen bëgg ngeen li ngeen ne jaral na leen ko pour sauver sa pays la pour sauver cette nation la il faut qu'il y des gens très déterminés très engagé mu jaral leen lu ne pour sauver sa pays la kenn du sauver dëkk ci ay internet toog di wax kenn du sauver dëkk ci ay ker kenn kenn sauveegul dëkk ci ay ndox mu sedd une patrie se compose lañ wax de morts qui la fondent et kila vivants une patrie se compose de morts kila fond fondent et des résistants qui la continuent il faut ñu am fulla am fayda bu day nii ñun bu ñu fippoo rek wala ñu wane suñu bopp rek dama ne li nga xam ne moom moo am justice bi am nii ñu juge ne Ousmane Sonko delloo nañ ko ci liste électorale yi nañ ko jox ay fiche lundi na ñëpp taxaw bu bu direction général des élections taxawee di wax ay waxi dof ngir yàlla na sénégalais génn na sénégalais génn nag parce que bu boobaa lu ñuy xaarati dañ ñoo waxoon xaar leen justice dina àtte justice ba àtte ne nañ ko delloo ñu dem di jëli parrainage ñu ne ñu noo du joxatu duñ leen sax jox donc bu boobaa nag. ku taxaw nag leneen la la fa téye de bul ne justice de parce que justice àtte na ba pare ne delloo nañ ko ko nañ ko delloo ay parrainage donc loolu boo amul lëndi mu sax montre que vraiment jaay doole fi ne ñi ñëpp gis nañ ko léegi ndax xaw ma kan moo nar a génnaat di na waloo gaa ne noo xaar leen euh, kuur beneen buy ñëw ak nangam ak nangam xaar bi mu ngi bëgg a yàgg te ñoom xaaruñu donc nañ yokk fulla nañ yokk fayda nañ yokk fulla nañ yokk fayda nañuy déterminé wu ci xeex bi nañu ko jaral bu leen jaralee benn nañu jaral fukk fu Macky Sall bind nañ fa yokk zéro ci ginnaaw won ko ni benn ngay bax ñun dix la voilà léegi nag waxi dof yooyu ñuy wax noonu ñoom ñoom ñoom ñëpp kon xanaa juge bu nekk bu dee sa frère wala sa nit mi ngi si administration waroo juger juge bu juge bu dee comme juge yoo xam dañuy wax ay mbokk ay paternité et cetera familiarité waa léegi juge yi di àtte Ousmane Sonko ñoom seen mbokk yi ñu ngi ci biir justice bi ki nga xam ni moom mooy euh, borom 94 milliards yi Mamour Diallo frère am bu mu bokkal ndey ak baay la frère am bu mu bokkal ndey ak baay juge la Mamour Diallo xanaa kon Ousmane Sonko bu mu plaintee Mamour Diallo. ñuy naax saayal plainte boobu xanaa Ousmane Sonko dafa waroon génn ah Mamour Diallo la parce que frère am bu mu bokk ndey ak bàyyi juge la donc loolu moo tax ngeen ngeen def xanaa bo <laughs> kon kon ñoom tam mënoon nañ euh, rejeter lu loolu ne non non Mamour Mamour Diallo euh, frère am mi ngi ci justice mi ngi ci magistrat la kon réquisition xawma je sais pas seen yooyu ñuy wax noonu di jouer avec les les mots si su si Sénégal lépp ci fen lañ ko lañ ko lañ ko ràbbee di bëgg nax ni di ci ay français lépp pour nax nit rek mais code pénal mun nañ ko rëdd ci wolof mu leer naññ ñu wax ak nit yi leer parce que langue kese la du yëfu yëfu jinne ay nitoo ko ay code la du ay code la ak ay loi ay nit ñoo ko voté du yëfu yàlla yàlla bindu ci dara du diine ay jullit tëgguñu ko ay chrétien tëgguñu ko ay ay ju ay yëfëru ko tëgg ay nit bonoo ko tëgg ay fenkat ay manipulateur ay politicien ñoo ko tëgg kese bu ñuy wax justice dañuy mel ni yàlla moo bind jox leen kenn attewul alxuraan kenn attewul bible foofu la ñu attee ay nit ñoo toog ti xalaat nan la def pour moom pouvoir bi nan la ñuy def pour yàgg fi nan leen def pour toog fi nan leen def pour am ay opportunité nekk fi ñooñu ñoo toog di xalaat di jox gars yi dem voté ji assemblée nationale dugal ko donc loolu kese la donc du yëfu yàlla du yëfu yenentu du yëfu diine setul sellul ku ñu kenn ra ay loi ki nangam ak nangam donc ñi nga xam ne dañoo ñëw respecté loolu sax malgré ay nit ko kii ñu respecté ko mu ñu joxee nit dëgg nit yi dañoo war a nangu Sénégal yi waa Pastef ñu yàgg nangu lañ yàgg nañ leen juger ci ay affaire muñ nañ lépp lépp lu ñu leen teg mun nañ ko ñu ngi doog a dégg dans l'histoire euh, de la justice ñu naan dañuy toppee nit corruption de jeunesse te pourtant noonu lañ toogee muñ ko seen nit boobu mu ngi ci kaso bi Ousmane Sonko est-ce que gis ngeen ñu dem daje euh, kaso bi parce que ñu ngi doog a dégg loolu donc ñoom nu ñu munee di nangoo ñu juger seen nit ci ay fen ak sos ñu toog di ko muñ ñoom buñ leen joxee dëgg tam na ko ñëwee muñ mais ñee mënuñu fi nekk nag ne lépp lu ñu def rek wala lu ñu wax rek lu jóge ci justice dafa war a nekk li nga xam ne ñoom ñoo ko bëggal seen bopp non loolu moom ça doit dafa war a jeex donc encore une fois nee naa leen ñett justice moo am justice yàlla mooy bu dëgg bi mooy àtteem justice tribunal bi ak justice peuple yàlla nag moom yàkkamtiwul am te yàlla muy gën a àndal justice dafa gën a ànd ak peuple lu ñu bëgg bu peuple bi bëggee dee ci toroxtaange yàlla seetaan leen du leen sauver de non du leen sauver peuple bu bëgg a dee ci toroxtaange yàlla musul musul sauver peuple bu bëgg a dee ci toroxtaange yàlla day ñëw en aide ak peuple bu bëgg dara balaa nga cee xam dara xoolal ci nelawkat ci nalawkat ak ku jóg di lijjanti pour wan ne yàlla du ànd ak nelawkat nga nekk di nelaw dara du la fekk sa biir kër kenn du la fëgg ne la am mais kii dox dina dajeeg lu ne yàlla may ko ay xéwal yàlla may ko ay bunt donc yàlla moom dafa musa a ànd ak way sabablu yi donc il faut que peuple bi sabablu pour yàlla dimbale leen moom justice am la yor de muy justice su dëkk mais da koy téye du ko jox n'importe qui bu gisee peuple bi di rayante pour am justice boobu soif de justice nekk ay épris de justice di xare yàlla day ñëw justice am ne leen ma dimbale leen bu boobaa dañuy am ndam bu ñu toogee seetaan justice bii nii nga xam ne Macky Sall da ko instrumentalisé quatre-vingt-dix pour cent des juges puis de la merde ñuy imposer le peuple sénégal te ñoom wanewuñ seen justice bu boobaa yàlla tam day seetaan te bu boobaa ñoom ñooy perte donc ñetti justice yi bu yàlla bi justice bii ñuy wax nii bu classique bii nii ak justice mooy populaire dafa am justice de Dieu justice populaire ak justice bi tribunal yi kon nañ yokk justice populaire bi nañ yokk fulla yokk fayra nañ yokk jom lëndi na ñëpp taxaw na Sénégal yëpp jóg ni ko waa Casamance defee jóg taxaw jëmmal seen bopp na ñëpp taxaw ndax suba lëndi incha allah dañoo war a jox Ousmane ko ay liste parrainage am danañ fa dem jëli seen list parrainage parce que justice moo leen delloo justice moo ko dindi woon moo leen delloo justice moo ko dindi woon moo leen delloo donc kooku victoire de la justice la mais victoire peuple bi la mais bu leen nangu ñu confisquer ko de bu leen nangu ñu <laughs> gouvernement bi confisquer ko de confisquer victoire bi moom mooy ñu war a dem jëli parrainage dem dugg ca parrainage ñu ne ko waxeej ne ñu leen jox dara loolu mooy confiscation bu leen ko nangu tey bu leen ko nangu suba taxaw leen détermination abnégation courage résistance di leen wax ni bu leen nalaw waa ji bàyyeegul ba léegi bàyyeegul ba léegi ma ngay siisoo ko meraka ba naan day dem a topp ji juge ba ak da koy jéem a génne ay loxo loxo rek yi kenn xamut ci ay kàcc ki fenn kon bu leen gëmm bu leen nalaw bu leen teg bopp bu leen teg bopp ci mat laa de bu leen gëmm bu leen nalaw taxaw leen waajal seen bopp voilà match bi jeexagut dugal benn bii di jubile <laughs> day am fu mu yem noo mun a dugal bii match lañ nekk ñun match lañ nekk ak Macky de rang bal ci poto ñoom ñu ne dañoo dugal bii dem di jubile gars yi woo leen n'est-ce man pour man marché bi 1-1 la sax parce que ñoom dañ ñoo dañoo sàcc dugal ñu biitu hors-jeu bi sifflé ne bii la ñu joué joué ñu dóor bal bu leer nañ rang mu dugg arbitre sifflé bii donc léegi ñoom ñoom boobu la ñun ñu ngi jibale ñoom nee nañ affaire bi du pour mu wax ji rek nee na ñoom nee nañ affaire bi du bii ñun ñu ngi jubile arbitre bi nee na bii la léegi nag xam nga lan mooy seetaan ñoom ñu ne du bii du but du but ñun ñun arbitre ne but la ñun peuple bi ne but la ñuy joué ñoom ne but la ñëpp gis ni but la du hors ñoom ñu taxaw ne du but match bi du continuer ndax du but kooku nooy def da ngay raag nooy def doo ñibbee noonu ak 1-0 nay leer nañu am fulla bu day ni nañuy jox sañuy parrainage nañu jox suñuy parrainage bii bu leer naññ la du hors-jeu du dara leer na naññ peuple bee ko dugal nañ ñu jox suñu parrainage lundi ñu dem wuti suñuy parrainage ñi ngi Ousmane Sonko dellu ci liste ya ñu wuri parrainage après nag conseil constitutionnel duñ fa toog di xaar cour suprême ndax tout simplement nee nañ dañoo dañoo def appel xawma ngeen xamee ko noonu kon. di wax ne sénégalais yi encore une fois nañ yokk suñu bëgg-bëgg ci projet bi nañ yokk suñu bëgg-bëgg ci lu ñuy wut ci lu ñuy wut nañ ci yokk suñu bëgg-bëgg ñoom lu ñu bëggee toog fii toog fi moom munul am ñoom xam ne déglu déglu leen ma leen wax de man mun naa leen waatal du ma sëriñ de mun naa waat ci kaamil mun naa leen jiñal ci daraje Seydina Muhammad ñoom xam nañ yéen xam ngeen yàlla xam na ni duñ fi toogaat ñoom musul am ci histoire fii Sénégal depuis que ñu nekk fi nguur gu daanu jël ni teg fi du am yàlla may ko fii Sénégal jamono ci munul ne képp ku daanu day ngay xeeñ maa leen wax ne deux mille vingt quatre APR dinañ bëgg a dajale ba sonn mu tëleen day lañuy xeeñ ni PS daanoo woon di xeeñ day PDS daanu ba tey di xeeñ day APR 2024 dinañ daanu di xeeñ day bu ku ñu jub nga fatt say nopp kooku maa leen ko waatal barke alxuraanul karim APR euh, benn bokk yaakaar duñu ñu gañe barke alxuraan billahi du ñu gañe wallahi du ñu gañe wataalaahi dañ fiy jóge loolu moom maa leen ko maa leen ko leeralal ci saayir ak ci baatin billahi benno bokk yaakaar dañ fiy jógee wallahi duñ gañe wataalaahi duñu gañe déggu leen ma de te lu ma leen wax dafa leer dama ne leen même bu ñu jëli woon George Bush duñu gañe même bu ñu jëli woon Trump daf ko candidat duñu gañe yéen xamu leen lan mooy rocc baatin ci mbir doomu aadama lu mu ngand ngand lu mu rëy rëy rëy nu mu ponkal ponk lu mu doon mbër nu mu amee doole bu yàlla roccee siiru bi dootul dekkati dara bu yàlla roccee ruuga boo bu waxee sax mu daanu liir sax rekay daane ruugi moo deñ bu ñu daajaloon bay bëgg a dee te ñoom am ñu nekk ci biir ñu xam ne ñii daanu nañ moo tax guerre ga fees fa del kenn toogutu fa du lu fóode lu vrai la ñoom seen biir jubóowuñu parce que ruugaa tas ruugaa fa jóge ña ngay rayante ku nekk demal na sa bopp ñoom gis bu Abdallah jaar gauche ñoom Ali jaar droite ñoom eh, ñeneen ak ñeneen ñoom ñëpp tasaaroo barke alxuraan lu dëggu la mënuñu leen téye te ci biir tamit booy yi ñu ngi tasaaroo ñi toppi nañ bun ñi toppi nañ euh, euh, Aly Ngouille Ndiaye ñi toppi nañ kii ñi ñi ñii ñu ngi noppi bugguñu dara ànduñoo kenn jëw donc foofu dafa tas yàlla moo rocci la fa newoon da ngay gis kër koo xam ni doomu aadama yi dañ fa doon fees dell di fa añee di fa reeree di fa ndékkee naan ataaya bés ne monsieur yàlla ne wéj ruugi fekk benn mag kese moo nekkoon ca kër ga moo doon tax ñëpp dajaloo mag ba dee rek kër ga naax saa yi du jeex mag ba dee rek kër ga naax saay mel ni moo ne woon leer gu fa doon dajale nit yi loolu yéen ñëpp dund ngeen ko gis ngeen ko xam ngeen ay kër yi ngeen doon fréquenté kër yoo xam ne tey jii boo fa toogoon bu suba kenn du la fa fekk ruuga dem na leer ga dem na xëy na benn maire fa newoon boo xam ni yàlla moo ko defoon mu mu centre lépp mu see kër ga naax saay du jeex yéen ñi ñëpp seen seen xëy na kenn ñeen seen kër maam la ñii seen kër papa la ñii seen kër dafa am luy rocceeku loolu loolu mbirum yàlla la mooy rocci moo rocci benn bokk yaakaar billahi du gagné élection yi wallahi du gagné élection yi wa taalaahi ak candidat bu mu doon ci àdduna duñ gagné élection yi xaw ma kuy gagné nag du ñoom xaw ma kuy mais du ñoom nañu na def Ablaye nañ ko defoon na ko yàlla defee rocc ruuga ba Macky Sall bi kenn yaakaarul gañe ko noonu lay la defaat kii kum àndal du tax mu gañe jël leen dagg leen enregistré leen garder leen dama ne Benno Bokk Yaakaar seen candidat du gañe élection yi ak ku mën a doon ci àdduna Benno Bokk Yaakaar jeexal nañ dootuñ fi toogati ñu koy xam ku néew ci ñoom dem gëstu ji ko lijjanti ko ca baatin yaa cañ kurti kurti dem dugg ak génn ñu ne leen ñii gañewuñ ñooñu ñëpp a ngi takk seeni bagages te ña ngay wax ci suuf ne ah kër ga tàkk na ku ku mën a jël say bagages rawale lay bagages kër ga tàkk na ñoom seen biir ñoom seen biir boo leen déggee seen biir ña ngi koy wax man ña ma ciy dajal di wax ak ñoom wala ñu ma ciy déggante sax loolu lañ may wax waaye affaire ba jeex na te ci fa lañ nekk de affaire ba jeex na c'est fini jeex na. non jar na moo ña ngay dajale seen i bagage ñii ngi takk maximum ñii ngay rawale maximum parce que xam nañu jeex na takk yàllaa fa kenn mënul fexe ba APR gañ kenn mënul fexe amul baatin bu nit mun a ñaan ba APR toogaat fi loolu moom yàlla nañu fi yàlla bàyyi ba mille 2024 dina leer te di ngeen ko gisal seen bopp ñoo xam nañ loolu ñoo xam nañ loolu ñoom ils ont mu problème pour dajale ils ont mu problème sax pour ñu leen di defaral ay fiche wala parrainage ils ont d'énormes problème jamono ji intérieur guerre fratricide mu ngi ci biir jaxasoo tout kenn xamul kan mooy kan dafa yàlla moo fay lamp ya lépp lëndëm ña ngay mbëkkante te duñ ko tay di daw ku nekk a ngi daw di mbëkk sa morom kii kan la kii kan la xamante tuñ xamante tuñu affaire ba tas na bari dem rek maa ngi ci wax ak kenn ku leen jege bu ñuy waxtaanee. mu ne ma ci bun Abdallah Jonn la jëm ma ne ko bun mu ne ma waaw waaw jox na ma rendez-vous sax suba fa laa jëm quoi te ci ñoom la bokk jege leen loolu ma ne ah ne ko bu euh, mu ne ma mais booy bugg naa bu ma demee suba ah, neuf heures mun naa la ko paas ma ne ko non man amul man amul problème man ku ma woo ku mun naa la déglu <laughs> man yor naa conviction am naa ngëm-ngëm am naa fulla am naa fayda ragalu ma doomu aadama koo ma bu la neexee damal toog ak Macky Sall paas ma ko du dégg jog càgg jàgg du dégg caga du dégg góor jigéen muy wax du dégg cogg góor yàlla lay dégg ragaluma benn doomu aadama bu yeewoo Sénégal koo gis ñeme naa ko affronté du ma ñuy daw di ay di daw di dee koo ma indil en tout cas du ma juutu mukk nga laal ma ginnaaw du ma la jox mukk samay taat du ma du du ma la ko macal du ma la ko jox booy teg mëkk pëti daggate sànni ne la sa sa cuucu muy muy muy muy parpati moo tax ba mu bu mu waxee loolu 9 bu ma demee foofu bu ma ne ko waaw waaw 9h amul day fekk ma yeewu ay côté la man 5 foo ma fekk maa yeewu boo ma woowee 5 mu demee ci bun Abdallah Jonn wax ak mu dajeeg moom bu mu jëlee téléphone bi woo ma ne waaw mais ko Mollah ma xaar ma paas la maa dégg bun naan ko non non non non non pourtant man bu may wax loolu man xamoon naa ni bun da ko naan <laughs> bun ñimaw ma nee naa leen man bu may wax ni sénégalais rek ma yab de te xëy na dama leen a sori sax man sadik laa de bu may wax nii yenn sénégalais yi kii non dañ dama leen sori internet rek lañ ma xamee dañ may gis nii ci internet bi may wax di kaas am na xam xamuñu xamuñu sax état d'esprit bu may doxee xamuñu niveau de sadisme bu nekk ci man xamuñu lu ma xamuñu ko dañu may gis nii rek sangu solu ñëw toog jàkkaarloo ñoom di leen wax li am mais ñoom xamuñu kii ban niveau la toll ci sadique quoi. mais man bu ma yor du ma la dàq dara non bu ma demee incha allah bëgg naa la ko paas ngeen waxtaan dama ne ko waaw. 5 heures du matin 5 heures et mu woo ma fii jàpp 6 heures waaw ah, voilà naka xam naa waxtaan naa ak moom ba nice waaw lépp jàmm. waaw xaaral ma paas euh, kii euh, grand bi ah, kooku non kii bu na da billaahi maa dégg non non non non non non di ko wax non non mu téye téléphone bi xam naa waa jaa nga koy wax bu na nga non non non ma ngay téye téléphone bi quoi ndeysaan ma ne ko euh, paas ma ko yow xaaral après naa la waat après naa la waat waaw naa la waat léegi après ma ba léegi dégg ba nii dégguma ko ba nii déggaatuma ko <laughs> ba nii déggaatuma ko barke alxuraan ba nii déggaatuma ko rappelé de te guddi gi ba mu may woo di ma wax noonu bu ma demee naa la ko paas moom ak jabaram a toog ba suñ jonn yàlla tey paasuma ko bu fekkoon ni ab góor mbootaay laa góor yaay meema ñeex góoru mbootaay bu boobaa ñëpp ay jël ku nekk wax lu ne ay moolaa ñëw jàppala <laughs> ñoom ñëpp di ku déggul moolaa ku gisul moolaa dégg nga ko ku déggul moo laa fekk nga fu ñu koy waxtaanee moo tax boo déggee kenn kuy taxaw di gëmloo ñenn ni non man moo laa mun naa contrôler dama ne ki may contrôler la maire de sa mère n'est pas encore née Sénégal papa jurógu fa doom bu mu mun a contrôler yaay jurógu fa doom put bu mu mun a contrôler ku taxaw ne maay contrôler Mollah mun naa contrôler nekk Mollah ne da ngay duul diwoo da ngay day sa tubéy dama ne papa jurugul doom Sénégal bu mun a man mii bopp bii yaay ju duggul jur doom mu ne potu bu génn di ma contrôler dama ne kooku mu leer seen nopp képp ku leen di wax ci seen nopp ne Mollah maa ngi wax moom mun naa contrôler ay kàcc de da lay dóor de da lay dóor de moom xam na ni mënuma contrôler xam na ni baayam mu contrôler xam na ni yaayam mënuma contrôler xam na ko de ndax la may wax ba léegi yéen a ngi dégg musuma cee changé tey la waale gon na aay Sall ba ma koy saaga di ndey ba léegi maa ngi saaga ndeyam nguuram ñamay saaga seen ndey ba léegi maa ngi saaga seen ndey la ma doon wax changé wu ba ci bu tàngul bu gënul tànk tey doo fi wàññeekuwut donc képp ku lay gëmloo ni mun naa contrôler voilà wala maa ngi koy ko da ngay dóor moo daa ne da ngay fen da ñuy nax da nga ñoo pour muy clair ku ma woo dinaa la jël déglu la lijjanti ci yow ay information wax loola di di am lu may sàcc ci yow récupérer dem fëgg ko sama live dox sama dox point <laughs> noonu rek laay doxee de da jaay bandi ma jaay la rek waxu ngaaka koo ma ne ma paas la waaw allo waaw waaw voilà ma lay déglu voilà ngay wax di la wax loo ngay wax foog ni yow contrôler nga fa man maa ngi sàcc li nga yor yëpp bu ma ñëwee fëgg ko ci live dox dem sama yoon bu Sénégal taxaw aw ma ci xarit aw ma ci àndandoo aw ma ci dëkkandoo faru ma ci kenn loolu nay leer dama ne man ku may contrôler la mère de sa mère n'est encore née papa sama papa sax mënu ma contrôler waaw ku papa mënul contrôler ku may contrôler ku may papa bi mu jur mënu ma moom xam na ni mënu ma contrôler des fois ma def live sax def yu may def paa bi dem déglu ji ñëw woo ma di intervenir non déglu naa sa live bi yaa ngi wax li yaa ngi wax laa ma ne waaw léegi loo ci gis ah non man dañoo loolu moom jarul wax ma ne non man maa <laughs> la. parce que alxuraan dama koy def sama papa billahi wallahi wa na ko loolu man la non parce que nii ma ne ko noonu loolu yow la loolu yow la man comme affaire ma jàmbal jaañ bi wax naa ci bu mu sosalee sëñ Bas Abdou Khader am ñun ay murit lañ mu sosal Bas Abdou Khader ma génn def live ne Bas Abdou Khader génnal nga wax ne sëriñ ne astafurlaa du ma ne sëriñ man du sama sëriñ man sa papa woo ma waaw déglu naa laaj bi la yow <laughs> papa loolu moom foog ñu daal sa sëriñ la yow man du sama sëriñ booy sam booy la booy la booy Mbass Abdou Khadre du sama sëriñ non la papa man eh, yow mii. sama papa waaw sëriñ papaam sëriñ la woon waa yow yow directeur Senelec nga woon est-ce que mun naa defar courant mun déedéet est-ce que bu courant bi doon tëll mun naa ko defar déedéet mooy ko waaw léegi lan moo tax yow nga bëgg a gëm ni papaam rek moom sëriñ la te yow munoo gëm ni yow directeur Senelec nga da ay ci ay affaire te gëmoo ni man man war naa mën a mun loolu hmm, dëgg la ko voilà sëriñ la ci yow respectel naa la ko man du sama sëriñ du sama sëriñ dégluwoo ko <laughs> am am naa ci droit de waaw ah, kon kon man pour wax la même sama papa mënu ma contrôler foofu coow rek lañ fa nekk di wax muy wax ma may wax waaw ah, man nag mun nga cee xool kii ma ma man dëgg rek point sa concept du sama concept sa philosophie du parce que c'était mon père que loolu dama ci ànd wala non dama dama dem ba nekk mag léegi am xel di réfléchir boo waxee a ma gis ni du a dama naa du a bee la de <laughs> parce que ma existe sama existence ban njëriñ la am donc ku papa contrôlé wu yaay contrôlé wu man contrôlé du kenn ku lay contrôlé te loolu waxuma sax Bass Abdou Khadre ki ma waxal moom mooy jambal Diagne daa sosal Bass Abdou Khadre nee na lépp lu ñu teg plan bu ñu teg Ousmane Sonko ba tey jii mu nekk ci lalu hôpital nekk ci kaso nee na loolu yëpp waxoon na ci rek parce que Abdou Khadir ba pare na ay sama doomu ndey ak sama wóol la rek ñu nangam nangam man boo ma fenee lee ma génn wala mu yónni samay bras droit ah wala mu yónni samay nit ne daf maa duulal de ma ngay fen kon nee na pexe yi ñu fi teg yëpp plan yëpp man waxoon nañ ma ko day kàcc day fen loolu mooy yëfu sëriñ sax ba dee sëriñ nga loolu nga war a kàcc day fen waxul ak man waxloowu ma ko musuma waxal lool day kàcc day fen mais ñoom dañoo jël affaire yi buñ leen sosalee ñu ne sëñ bi warul wax yooyu sëñ bi du ko wax léegi après sëñ bi day ñëw taxaw moom ne ñi nga xam ni ñoom dañoo dugg ci gaal gi dee ñoom ñëpp dañoo xaru <laughs> waa xanaa ku dem bay wax waa gaal gi nga xam gaal gi defuñu la dara jëluñu sa xaalis lebaloo leen financé woo leen ñu dem ba ci gaal ga daanu fa dee yow nga jël loolu yëpp bàyyi lu yàlla wax yëpp ne dañoo xaru waa ku mun loolu nag xanaa war nga amun bu ñu la sosale tam nga génn <laughs> waxtaan rek nag wax dëgg ca la dama bëgg ngeen utiliser seen xel pour dof yi leen di gëmloo ne non non jarul muy tontonte moom moom sëñ bi mag xam nga rek sëñ bi mag kii warul tontonte waaye léegi sëñ bi di tontonteeg ñi dugg ci gaali nag te defuñu ko waxuñu ko yoruñu xaalisam labuñu ko yoonam nekku ca yorul gouvernement defarul gaal toog ñu wax ko enseignement wu euh, maamam wala mun war a fa nekkee la Serigne Touba bàyyi mooy euh, xasida yi alxuraan ba mu waru waru ko mu ne ko fa ñu ko nekk naka di wax waxu gaalu jàmbur boo xam ni yettul gaal defarul gaal joxul waa gaal ga paas joxu leen yóbbal joxu leen sëri ca lu ci yoonam bu demee bay wax ci loolu kay war naa wax ci lu ko sosal mais yenn dof yi dañuy jéem a naan non du tontonte sëñ bi yow day mbëkk asamaan di ñëw non du tontonte yooyu te mun a tontonte gaal mun a tontonte ñu ñu ñu lu yoonam nekkul mu mun cee dugg ku dem bay wax ci lu yoonam newul kay war nga amoon a wax ci li li la sosal wala li la taqal donc man concept boobu laa dem philosophie boobu laa yor keneen ko yor philosophie euh, xaj wala keneen ku yor philosophie fanatique wala keneen ku yor philosophie ñu takk lu buum jëla diri <laughs> loolu yow la mais buum bu ñu la takk munul tax nga xëcc buum bi na ma moo laa takkal ci buum bi non dama ne ñàkk fayda nga ñàkk fayda ba waaj a takk la buum nga jëw di ko wuy muy jox ngooñ nga ko wuy <laughs> sa buum boobu denc ko rek boo bëggee tëdd nga dem nga jox ko mu takk ko ci garab gi ba mu dëgër nga toog foofu na law puub toog fa saw toog fa waaye man daal sa buum googu sama yoon nekk ci bul ma jox buum takkuma buum du ma xaj du ma bëy duma ma mbaam xuux dama libre am bopp di réfléchir xam fu dëgg nekk xam fu ay feni nekk xam fu caaxaan nekk xam fu lépp nekk donc magum jëmm laa éveewu kenn du ma seetaan kenn di ma bañ barek kenn di ma benn bennal kenn di ma fooye du ko nangul kenn kuñ takk buum jëlal sa buum xool garab gu la gën a doy wala ker gu la gën a yaatu nga takk foofu sa buum jàpp sa lees te bañ jël buum bi di ko jox kenn ko takkal ci sa baat ma nekkuma foofu nekkuma foofu de comme nu ma la man sëriñ Tuubaa laa gëm su mooy sama sëriñ xasaa xasaay di yëm yii laa gëm yi mu fi bàyyi alxuraan gi njàngalem ku ci topp mucc man man laa gëm loolu laa gëm nekkuma ci benn kër di fa traîner nekkuma ci benn kër ñi may yanu looy matt nekkuma ci benn kër ñi may bay looy tool ma ci benn kër ñi may def looy mbaam du ma ko nangul kenn du ma ko defal kenn li la ko jox ngay utiliser say doom di ci sangu say doom di ci lekk ba suur say doom di ci naan ba màndi say doom di ci dawal ay 4x4 say doom di ci yoro jeeg say doom di ci nangam ma la koy defal mel ni maa du ma ko maa ko lànk xool naa ko alxuraan ba mu jeex gisuma fenn fu ñu ko bind xool naa ko ci xasaay Serigne Touba gisuma fenn fu mu ko bind kon nag ma xam ne lii sa bànneexu bakkan nga ci jublu wëri naa xasaayit yëpp Serigne Touba amul fenn fu mu wax ni kaay leen ñu samay sëtaati sët ngeen topp leen dem ci seen tool yi di ko bàyyi di leen jox ñu yóbbul seen jabar yeeg seen doom yi dem leen ngeen dem topp leen comme ay xaj ngeen bàyyi leen ngeen defal leen lépp ngeen yéen ñëpp ngeen defal leen ko ngeen dem jox leen seen seen jabar seen doomi jigéen di ci xeesal seen jabar di ci xeesal di ci tegi mees di ci yokki cheveux di ci yokki naag yéen gisuma ko xool naa lu sept tonnes cinq cent yëpp amut ma xool kaamil bi alxuraan amut ma xam ni kon lii du dëgg lii du dëgg caaxaani kese la képp ak bànneexu bakkan <laughs> point donc man moom vraiment foofu monde boobu laa nekk kenn mënu ma fexe fexe fexe ba ma gëm leneen foofu laa nekk am na ñoo xam ne nag toog muy dox bi da leen arrangé tant que koy def bëgg nañ gaa yi nekk ci sëñ sëñ maam Mor Mbay buñ demee ba naan sëriñ maam Mor Mbay mais maam Mor Mbay lu ko def sëriñ xam nga loolu du cër Maam Mor Mbay ñu naan Serigne Mbay ban Serigne la kan moo xam fu mu jàngee ban diplôme la yor xanaa Serigne moom <laughs> ab garam bu mooy dafay Serigne boo demee ba Sénégal ñu naan Serigne Maam Mor Mbay ah xanaa ku ñu woowul Serigne dan laa yab rek sëriñ Maam Mor Mbay fu mu jàngee ban université da ngeen ko mos a mu ubbi alxuraan métti jot foo gi Serigne Maam Mor koo xam ne doomu. njaay commando la biiral daa biiral dafa fekk njaay commando bi nga xam ni bat para la nekkoon ka ka ka caaroy ñëpp xam njaay commando ca caaro yi yor njabootam fàqman bii di kuñu kuñu bu dugg këram ba biiral fa doomam ngeen taxaw ne bëgg naa sëriñ maam Mbay kooku est-ce que respecté nga sa njureel yow est que respecté nga yow yàlla est-ce nga yow œuvre Serigne Touba yi ci daj est-ce yow alxuraan bi lu def së Maam Mor Mbay mii taxawaalukat wëndaalukat boobu biiralkat bi lu ko def Serigne lu ko def Serigne <laughs> lañ jàppee ñoom ku ñu gis rek mu sol ñetti Abdou rek ñu ne sëriñ léegi nag il faut ñu éveiller conscience yi ne Serigne c'est pas n'importe qui Serigne la. mooy comme ni ñuy wax ne doctorat docteur sëriñ docteur en science docteur nangam professeur loolu <laughs> tamit moolaa sëriñ tamit valeur la sëriñ diplôme la da ngay jàng lettre science arab alxuraan xam-xam ba maîtriser ko toog ñu ne kii sëriñ la sëriñ bi ñetti abdu du <laughs> max kon nag gars yi pour bañ a génn ci sujet bi li may wax rek moom mooy ñu focus ci lu ñu nekkoon am fulla ak fayda Ousmane Sonko day dem ci élection yi nañ ko jàppee foofu voilà yéen boo ko Biafra fa la dëkk Njaay commando xam nga ko baax voilà yéen boo koñ doomam bu jigéen léegi mi ngi say feneen sax Mamboor Mamboor Mbay Mamboor géwéloo mbaay moo biiral doomam biiral njaaloo heure bi bu ñafoon maamam téeméeri yar <laughs> duñ taxaw daal sëriñ bu ñafoon maamam téeméeri yar tey charia bu daaroon ci kawam moom Mamboor Mbay moom ñàpp nañ maamam téeméeri yar yaram bi yëpp a dagg fu nekk nii waaw <laughs> dëkk dëkk sunu bu bàyyeeku la <laughs> wala dëkk bu la bu jongul donc moo tax ñu naan sëriñ mais fu mu ne nii mu ñuusoon maamam téeméeri yar yu saf sàpp mi gulaali ko ba taari tànk yaakaar naa ne jamono ji ku ko romb di nga wax layolu sëriñ <laughs> voilà yàlla nañ yàlla musal da muccal ñu ci xeetu sëriñ googu <laughs> nañ teg gi waay Hmm? heure bi bu ñafoon maamam téeméeri yar doq doq ngir xale yi di ñoq ñu lappide maamam kon heure bi kenn du na jëriñ mais kooku dañoo kon réew naax saa la réew naax sa xandang la ku leen <laughs> donc les gars focus nekk ci lu ñu nekk am ci fulla ak fayda am leen fulla ak fayda ñu nekk ci lu ñu nekk ba jël ndam li Ousmane Sonko dafa war dem ci élection yi buñ koy gañee foofu lañ koy gañee mais kenn du ko tere dem ci élection yi voilà nay leer yooyu yëpp sax ay deuxième la la rupture day yeewi taxaw woo ko xoolal sa waay jamono ji fii lañ ne benn combat la Ousmane Sonko dem ci élection yi kese sa waay na yeewi yeewee koog nañ tasaaroog na TFM rajo xoog nañ bombardé woog suñu gàtt newu ca wuruj Ousmane day dem ci élection yi loolu moom <laughs> moo fi mus a ne ñoom ko man loolu rek laay dégg jamono ji damaa gumba tëx ci lépp bu TFM doon rajo xaw sama muuti newu ca yeew yi di bombardé wu sama tuun newu ca Ousmane Sonko comme nu ma jàkkaar la son portable bi laa jël teg Ousmane Sonko ngi nii Ousmane Sonko day dem ci élection yi dara du ko tere dem dara du ko téye point fu mu ne nii déggatuma dara de yi ngeen di wax nii ay kesew kesew la ay waxi waxi picc la Ousmane Sonko day dem ci élection yi gis nga nu ma xullee nii sama téléphone jàkkaarloo mu mooy xool ma xool loolu laa gëm Ousmane Sonko day dem ci élection yi lépp détail la jamono ji dégluwuma dara dégluwuma dara monde bu ma nekk rek <laughs> nekku leen foofu vraiment monde bu ma ne nekku leen seetlu leen dara ban 1900 laa gëj a wax ay waxu Adji Sarr parce que dama ko dépassé. ban 1900 laa nekk di wax ay waxu golo yooyu doon kii amoon na jamono buñ ci tollee wax naa ko wax naa ko pare naa ci bu Adji Sarr doon day ndakaaru sax sama yoon naw ci bu bu bu bu duggoon fii tëb état sax sama gat ne ko romb naa état bam dam état bu ne nii mooy Macky Sall Ousmane Sonko Ousmane Sonko Macky Sall ah Ousmane Sonko day dem ci élection yi non non day dem non day dem jeex na léegi nag yaa xam dañuy raak dañuy taal dañuy mais day dem par force loolu laa gëm yee yëpp dépassé naa ko sincèrement dépassé naa ko de boo leen seetloo bu baax xam ne live yi may def nii débat yi ngeen nekk ak yi ma nekk bokkul de a ngi fële Adji Sarr xaw ma lan dafa bëgg an xaar dee naa deewut du a du ma du ma wax ci moom intéressé romb naa ko TFM lu fa xew mbaa amul kuñ fa dama gàtt naw ci romb naa ko focus focus sur la participation de Ousmane Sonko point loolu rek laay dégg loomo ma wax lu loolu jàppal dégguma ko focus sur la candidature de Ousmane Sonko et j'appelle tout le peuple sénégalais focus sur la candidature de Ousmane Sonko dama ne boo leen jàppee benn bi day réussir boo leen jàppee fukk day am yu leen rëcc boo bëggee dàqee lëg lëg dafa mën a daw boo ko bëggee dàqee benn ngay dàq mun a dàqee lëg di daw point en voulant trop gagner on risque de tout perdre bàyyi leen détails yi concentré wu leen fii sur la participation de Ousmane Sonko aux élections deux mille vingt quatre point amul leneen kon nag gars yi maa leen sant di leen gërëm di leen bëggee bu wër di leen wax ni focus deux mille vingt quatre pour la candidature tout simplement de Ousmane Sonko aux élections focus guys focus. sénégalais nag ndem dafa naqare <laughs> fogasal sénégal comme élève bu bu gëmmentu élève bu gëmmentu dafay naqare yee di ko ne demal sël mu ji mu ñëwaat dina law danga mbéj maamam mu commencé waat di nga këdd mu comme comme élève bu gëmmentu def xip xip xippali bët xip xippali bët focus leen sur la candidature Ousmane te ngeen bàyyi détails yi focus leen pour la candidature de Ousmane Sonko day dem ci élection yi loolu rek moo fi jar ngeen bàyyi détail bàyyi leen détail loisiveté loisiveté c'est la pire des vices dafa mel ni amu leen dara li ngeen di def man bu ma toppoon sénégalais yàqu na barke alxuraan saa yu ma yeewoo da ngay daw ba sonn ñu topp la day yeewoo ñu ñëw yónnee loxo ma Fatoumata Badio Ndiaye Fouta Tampani ñëw voilà ah, Fatoumata Badio Ndiaye Fouta Tampani lan la <laughs> xoolal vidéo ma la yónnee non non non mënu ma xool vidéo waxal rek ma xool vidéo bi parce que dama koy a may fii taluma ko ah, non ne dana day jaay <laughs> dafa far léegi sonko nan day jaay ay ay cuuraay ay na bii sonko la tudd bii jabaru sonko bii maay bàjjani sonko umpaañ sonko man ah lii hmm, ah, xool ko waa naa xool booy dem rek ma bës supprimer pum vidéo boobu pum mu naaw du ma ko xool mukk du ma ko mus a xool <laughs> lu ma ci jot ku si néew yaa ma ko wax du ko mus xool mukk saa ñu yeewoon indil la benn ay ak ñoo bari jot sénégalais <laughs> ku bëgg a dindi ci ñoom jot di rey ak ñoo bëri jot xëyuñu gontuñu ngoruñu yàttuñu dañu toog rek nekk ci net bi H24 luy ñu jël lu romb ñu encaissé débat ci lu romb ñu encaissé débat tey ma yeewooti ñëw fekk ñu yëndee ma xaw ma saar xaw waaw moo la xoolal xoolal la lan benn jigéen moom ko yónnee tey sànq yow sànni ma vidéo pour moom damay seetaan toog si kanam rek mu woote ma teg ko de waaw ne ko non seetaanu ko seetaan ma ne ko non du ma euh, jot non Adji Sarr kër gi mu nekkoon te doon jéem a xaru taal kër ga ma ne ko mbaa rek non deewul ah dara jotu ko <laughs> ma ne ko ah d'accord yow kon kër googu kër Adji Sarr la ah ma ne ko kër gi kër Adji Sarr yow da dugg ci kër googu fekk ni fii nag Adji Sarr dëgg wóor na yow buñ la tegaloon kaabil nga waat kër googu Adji Sarr fa dëkk <laughs> non non loolu moom mënoo ko waat ah ok léegi nga ne kër Adji Sarr la. yow bu doon dangaa dugg ca kër ga fekk fa Adji Sarr sax mu seet si la fa wala nga seet si ko wala mu def fa vidéo nga xàmmee këram googu noonu bu ëllëgee nga ne taal na kër ga sax da doon jéem a xaru ah loolu ma ne ko léegi da ko doon a xaru taal kër ga mbaa gaañu na ah loolu de wóoruma am na lakk-lakk brûlure naa loolu de wóoruma ah waaye yow soxna si yow information boobu loo bëgg nan laa koy seetaanee nan laa koy seetaanee xanaa kuy kuy jéem a xaru sax di nga sa baat dina dagg wala ngay jéem a xaru buum bi kii ngay jéem a dee wala ngay jéem a xaru taal foofu nga lakk sax tuuti wala ngay jéem a xaru sax au moins am ay brûlure mais xaru boo xam ne nekkul hôpital tàkkul ay sëfam tàkkuñu <laughs> nga gis benn ñu ñu montel la benn néeg rek ne la fii la nga ne fii la Adji Sarr ki mel ni ku fa fekkoon Adji Sarr <laughs> nga dëgg de voilà ñii ni mënee fen rek ko fenkat ki koy dégloo koy dundal voilà yow ñii dañu mën a fen ma ne ko fenkat ku koy dundoo koy déglu <laughs> moo koy dundal de fenkat boo gis ki koy déglu moo koy dundal moo koy dundal de mais bu bu toogoon duuli duulam kenn du ko xool kenn la jëndoo ko bu dee noppi mais yéen ay dundal fenkat yi moo tax Sénégal bëri fenkat saa yi kenn fen parce que yéen leen di dundal jël seen temps di leen xool di leen déglu bu ñu defee vidéo bu ñu fenee sax dañ fa fekk vingt sept mille man bu ma toogee gis benn vidéo benn euh, tudd waa jële califourchon lu tax ma ko woowee califourchon parce que loolu lay dundee xam ngeen luy califourchon bébé la ñuy def califourchon califourchon mooy euh, lu ngeen lu ñu koy mbootaay mboot mbootaay góoru mbootaay la tuddul californe califourchon dañ koy boot moom liggéey xëyut yàttu gor ci politiciens yi lay dem bi di leen tuddee doom di cogg ak a mar marbun loolu luy dunde marbunisme donc kooku califourchon la dañ koo boot califourchon mooy boot dañ koo boot bu lekkee dañ koo boot liir buñ boot lu mu def dañ ko koo jox biberon dañ ko koo jox bu lekkee dañ ko jox bu dee sax ci couche yi dañ ko koy dindi donc moom kooku califourchon la léegi man mënuma comprendre benn califourchon bu toog def benn vidéo man du ma seetaan mukk nag seen vidéo romb gis benn ñu dagg ko mu am 27000 dama naan kon am na 27000 personnes yu toog fii di seetaan waa ji <laughs> man man boobaa Kaliphone Sall duulkat du sama problème de man man question mooy posé mooy mais ñan ñoo 27000 personnes yi ñan lañ kon damay gëm ni am na 27000 personnes yu seen nday liggéey yu toogoon fii di xool di xool waa ji kon am na 27000 personnes yu seen bàyyi liggéey yu toogoon fii teel seen temps ni ngi mel ni nga romb fenn rek. gisoo nit yi de mais fekk nga fa vingt sept mille donc day nga xam ni kon am na fi vingt sept mille personnes yu fi jaar day fi man loolu laa gis du sama waa ji de xooluma Californie de damay ñëw xool ne waaw vidéo bi kon am na vingt sept mille rek pousse nu may ñi ñu poussé vidéo yi laay poussé vidéo bi am na vingt sept mille kon am na vingt sept mille ñu seen nday liggéey ñu fi jaaroon ba xool ba day fi ba dem avancé du ma mus a bokk ci vingt huitième personne bu fay day du ma ko mus a def donc gars yi focus focus focus focus focus 2024 pour la bàyyil nañ leen yëpp teggil nañ leen benn rek lañ leen sas focus pour la candidature du Ousmane Sonko aux élections présidentielles 2024 xanaa ah, loolu yow mën a applaudir tàccu leen seen bopp nag gars yi wàcce nañ leen lépp coono yëpp lañ leen wàcce coono yëpp lañ leen wàcce benn rek lañ leen jox bu leen xeexal kenn bu leen dayante eh, fenn yéen daal benn rek lañ leen sas ako yomb focus sur la candidature de Ousmane Sonko aux élections présidentielles 2024 kese benn phrase xanaa loolu këru leen ko nag bu luñ leen wax bu leen risi loolu rek lañ leen bindal mun ngeen ko chaque jour wala yow copier leen ko dix mille fois ci ay feuilles focus pour la candidature de Ousmane Sonko aux élections présidentielles 2024 ngeen koy bind focus pour la candidature de Ousmane Sonko aux élections présidentielles 2024 focus pour la candidature de Ousmane Sonko aux élections présidentielles 2024 focus pour la candidature de Ousmane Sonko aux élections présidentielles 2024 bind leen ko jël leen ay feuilles yu bëri ngeen bind loolu rek lañ leen sant sant ñu leen dara loolu keese ngeen focus ci keese loolu keese la ak yomb bu leen bind leneen bu leen déglu leneen focus pour la candidature saa leen yeewoo focus pour la candidature de Ousmane Sonko aux élections présidentielles 2024 focus pour la candidature de Ousmane Sonko aux élections présidentielles 2000 loolu rek lañ leen sant ak devoir boobu yow mën na nag ku ci amul 10 sur 10 nag booy sa waay eh, ku ci amul 20 sur 20 nag doo nit loolu kese lañ leen sant kese këru leen ko examen bi loolu lañ leen di loolu mooy réponse bi en 2024 focus pour la candidature d'Ousmane Sonko aux élections présidentielles 2024 examen bi loolu rek muy génn amul leneen bu leen kóoru leneen bu leen jàng beneen histoire kese focus leen ci lundi on verra incha allah na Macky Sall jox Ousmane Sonko ay fiche de parrainage am ñu fas yéene làbbali Sénégal neexagut jamono jii gaa yaa ngi wuti parrainage Sénégal a ngi fàdd ñëpp ngi téye seen carte d'identité <laughs> mu ngi doog am candidature élection yoo xam ni di waajal ay parrainage dëkk bi yënguwul dëkk bi yëngu ne zéro <laughs> kër goo dugg kungu kungu parrainage ñu la la ah Ousmane Sonko da la ñuy xaar jamono ji dañoo jombi de foo dugg kungu kungu ah ñun de Ousmane Sonko la xaar te booy booy jaay booy jaay seen carte ay bande lañ booy jaay am na ñuy jaay seen carte ay bande lañ booy xam lu ñu def yenn booy ñooñu moom ñoom ñëpp la ñuy jaay seen carte benn carte électeur la ñuy yor. benn carte électeur toog di xaar ñooñu moom ay jaaykat lañ kenn mënu ci dara bu Jamra ñëwee ñu jël carte jox mu jox leen cinq mille ñu dugal seen poos dencal bu bu Juda Diaz ñëwee ñu jox Juda Diaz bind téegal kay ndega ñu dencaat am nañ dix mille toog di xaar am nañ am na booy yu mel noonu de ngeen moytu booyoo de fu ne lu ñu la ku la wax ne dala pare ne te budul Sonko doublon ngay am de. bu keneen ñëwee ñu defaat ni encore jox la nga kii jox leen cinq mille wala dix mille ñu dugal seen poche booy de am na yenn booy yoo xam noonu lañ nekk di jaay ñoo ay jaaykat lañ ñooñu moom ku leen jël doublon la dofuñu booy dofuñu am na ñoo xam ne moom jaaykat lañ ñoo jaaykat ñoo dañuy jaay duñ jaay kenn kese de dañoo yor seen carte électeur di jaay di jaay di jaay di jaay ñooñu ay jaaykat lañ ay commerçant lañ seen carte électeur dañ ci commerce ku la wax ni day ne te parrainé wul Ousmane Sonko ko bu mu la nax de doublon la <laughs> leer la leen wax nag booy waaye baan la ñun ñi ngi ci mbedd yi nekk ak ñoom xam nañ booy yi nii yor seen carte yi di ko jaay ñoom nee nañ noonu lañ ko décidé képp ko la ne parrainé la parrainé wul Ousmane ko yoo lay parrainé boo nekkul doublon di triplon wala quadruplon wala cinquième plon wala dixième couplon loolu moom maa ngi koy wax ñeneen ñi Sénégal yëpp dañoo décidé. parrainé le candidat Ousmane Sonko moo tax jamono jii ñoom ñëpp téye seen carte di xaar keneen ku dem foofu booy boo gis mu jox la carte d'identité te du Ousmane Sonko te nee waa Ousmane Sonko maa la waatal ne la wala triplon wala quadriplon bu lay encaissé di la la ko jox loolu noonu na leen leer Sénégal yëpp Ousmane Sonko la xaar attention nag mooy ñi yor seen xaalis foog ni ñëw tegal gaynde booy naxatuñ leen de booy kenn naxatu leen booy yi nii kenn nax politicien mënatul nax fii benn booy loolu na na leer koo ci jox cinq mille da koy lekk keneen bu joxee mu jox vente aux enchères lañ ko def voilà ñun nag Pastef joxuñu kenn un franc dañoo ñëw ak projet ambition defar Sénégal rocc loxo yi bandi salte yi sàcc yi triant yi escroc yi dëgg bi ci dëgg teg dëgg bi ci yoon loolu rek mooy tax yoruñu fukki dërëm muy joxaate nag nay leer ku bëgg Sénégal am justice développé wu dëggu dox ci yar dox ci dëgg dox ci démocratie dox ci justice dox ci liberté bisimilah mun nga ne Pastef Ousmane Sonko képp ku bëgg a dox ci lu dul loolu wëril keneen discours bu leer lañ yor ak yéen loolu moo ñu tax a jóg defar réew mi ba mu ne cocc ba kuñ fu falooti say njaboot dinañ tal leneen lu du jubilé ba kuñ fi defati maire wala député wala ministre say njaboot buñ tëddee du ñu dinañ lay wàccal kaamil man de ku ma faloon samay njaboot di jubilé dama leen dama leen di wax arrêté leen ñu ah, lan la wëri leen kaamil te ñaanal ma ah waaw pour mission bi yomb ca sama kaw ndax di pour doon xam ngeen diisaay bii doo leen fi nekk di ciblé wutal leen ma ay kaamil foofu noonu ngeen ngeen woo taalibe yi saraxal ma ay laax ñu ñaanal ma pour mission bi yomb ci man bu nu mujj ci tey dafa mel ni nit dee ngeen di ciblé xam ngeen nit bu dee ngeen di ciblé nit bu dee da ngeen di yuuxu mais doo donc jël nit jox ko benn post ministériel wala benn poste de responsabilité loolu mooy nit bu dee moo munoo fekk ab dëj di tàccu munoo fekk ay ab dëj di jubile buñ la joxee post loolu liggéey lañ la sas mu ay waar jox la alalu askan alalu mbooloo ak lu ci yàlla wax donc yaakaar naa ne war ngeen mën a tal leneen dem wàccel may kaamil ñaanal ma moo gën foofu ngeen taxaw fi naan da ngeen di jubile ndax joxuñu ma alal gii ngir ma jox jox baay wala jox yaay wala jox frère wala jox sœur kooku moom boo ko yaakaaree fande pour muy leer ñun nag loolu moo ñu tax a jóg yéegal liggéey bi yéegal liggéey bi ba nga xam ni buñ la woowee ne la dañ laa bugg a nangam nga ñàkkutoo xeeb voilà non non grawut non noonu donc nay leer loolu moo ñu tax a Sénégal rek ngay gis ñiy fal nit ay mbokk yi di tëb di dal ñiy kontaan waaye ci xol bi sedd ñi mel ni équipe nationale bu dugal bii waay waay waay responsabilité lañ ko jox fas yéene ko jox alalu Sénégal sas ko liggéey bu doy waar kii bu tëddee warul nalaw kii da war a fanaane di yendu di ko wàcceel ay kaamil ngeen di tàccu di yuuxu di fecc li du fet du ngénte daf dëj la donc il faut ñu toll foofu nag Sénégal dafa soxla toll foofu bërki dem rek am na sama benn copain bu ñëwee moom laay tëjee ñëw di naan ataaya fii ñuy waxtaan moo wax liggéeyam quoi mais man damay dégganteeg Trudeau sax ma ne ko Trudeau mooy premier ministre Canada ma ne ko ah yee continuer sama attaque xam naa nag mu jaaxal ko <laughs> mu ne waaye Sénégal xam naa bu ma leen waxoon damay dégganteeg Trudeau duñ ko gëmee dañ naa da ngay fen ma ne ko mais buñ ne dañuy da ngay fen sax parce que dañoo xamul ni Trudeau amuloo la njëriñ yow déglu Trudeau wala Trudeau di la woo la kon na fata la Trudeau di yokkal Trudeau amul fitu jël un franc askan jox la Trudeau ñimewu ko Trudeau amul fitu jox la marché ñimewu ko Trudeau amul fitu jël xaalisu askan di la ko jox Trudeau amul fitu may la terrain bu deux mètres carrés Trudeau amul fitu jël xaalisam jox la ndax amul xaalis boo defoon naa yaa ko ëppale kon kay yaa ngi dégganteeg Trudeau lu ci bees <laughs> nga dëgg de maanaam <laughs> nga dëgg de non damay Sénégal laa wax ma ne ko ah man sénégalais laa di. xëy na état d'esprit tolloowul mais man Sénégalais la man nga ne ma yaa ngi dégganteeg Trudeau wala <laughs> wala melon wala ballon te na fii de defar nañ dëkk boo xam ne Trudeau mënu la mënu la may terrain mënu la may un franc mënu la gañaloo marché amul lu mu mën te amoo fitu sax ne ko Trudeau may ma un franc <laughs> du la ko may amoo fitu ne Trudeau damaa bëgg nga defal ma nag amoo ko même bu ko Trudeau nangoon sax yow amoo ko parce que may fii nit amul fit policier arrêté la nga jël sa carte d'identité def ci 1000 francs <laughs> ya illah loolu Sénégal rek la am parce que nit yi ñoo taxawee taxawaayu mala moo tax ñu leen di saxal ngooñ ku fi taxawee quatre pat ñu saxal la ngooñ wala ñu jox la dogu yàpp quatre pat ku ko fi taxawee taxawaay loolu taxawaayu mala la taxawaayu nit ñaari pat la tànk taxawaayu mala quatre pat la wala escargot cinquante pat juutu quatre pat mooy juutu ku ko fi taxawee ñu jox la ngooñ policiers yi nekk ci tali quatre pat lañ taxawee moo tax koo ci arrêté mu jël mille francs def jox la nga jël ngooñ ba ubbi ubbi euh, lu mu tuddati bi yëy mille francs yi ngooñ bi delloo ko ko <laughs> ñoom ñoo taxawee taxawaayu mala quatre pat gars yi traité leen comme ay mala mais ku taxaw jëmmal sa bopp nit man nit laa du ma mala mais ban nit mooy am fitu jël 1000 francs di ko dugal ci ci ci ci euh, ab kayit di la ko jox wala ci permi dañoo bëgg a defar ay policiers yoo xam ni koo ci jox mille francs na ko taj da koy ubbi jël appareil am photo ko karaj karaj photo sa oto karaj karaj photo tak tak téye woo police comme nine wanoon traite oto yi ñëw ñu jël la tentative de corruption noq la ci kaso bi ak preuve à l'appui sa carte d'identité passeport baa ngi nii wala sa carte mi ngi nii wala sa euh, permis mi ngi nii mille francs la ci def bu boobaa dégg nga ni jàpp nañ benn automobiliste ñuus ko ci six mois de tentative de corruption pour mille francs bu mu jël dugal ko ci euh, li nga xam ne moom mooy permis jox joxaat policier policier bi photo ko wut seede beneen policier mu ñëw seede ko ñu bind ko ñu ñëw jàpp ko mi ngi kaso six mois la fay tëdd ndax tentative de corruption est-ce que beneen poli beneen automobiliste ñi mën a def loolu est-ce que beneen automobiliste ñi mën a def loolu mukk bu ñu déggee ne commencé nañ jàpp automobiliste te nokk ci kaso yi donc ñun loolu moo ñu tax a jóg te loolu noonu mi ngi fii te dañ koy def Sénégal en deux mille vingt quatre deux mille vingt quatre kenn dootul jëlati permis si ci def mille francs wala 2000 francs 2000 francs kenn dootul dawati te yoroo kayit kenn dootul dawati te nekkoo ci norme yi kenn billaay dinañ ko jaayanteeg yéen wallaay nañ ko jaayanteeg yéen wa tallaahi nañ ko jaayanteeg yéen ci saayir ak ci baatin loolu ñun ñoo leen ko wax moo tax ñun fu nekk nii tollaguñ foofu mille focus 2024 kaa la ñi dem rek bu kenn wor nañ dem ba 2024 après les élections ñu toog nag def réunion national loolu moom mooy débat moom mooy ci la ñu wooyee li ñu wax ni ay débat national yi ngay dégg non lii du débat de du dialogue la deal deal 2024 après Sonko incha allah ci la ñuy def débat national débat national taal projecteur yëpp woo leen ci ngandam maami stade teg affaire yi ne leen hey ngeen ah, jeex na de képp ko am 1000 francs na mujj ci tey tey nga jël ko jàkkaarloog police di ko ko jox sa kaso leer na de képp ku fi taxawaalu wëndaalu yor sa oto def ci ay nit ba mu fees ba ñuy toog ci Versailles yi ñii si suuf ñii nekk ci kaw ngeen na tëll sa kaso leer na de leeral leen yëpp ba mu leer naññ muy constitution bi ngeen leer naññ ne ku fi dof dof lu ba def lii sa kaso ku ku fi ñëw romb tali war a jaar ci ci kaw jaar ci suuf ah da ngay fay dix mille de da ngay fay quinze mille de mbaa ci kaso ba mbaa ci mu leer naññ leer naññ ñëpp xamandoo ko ñu joxe doxee doon ci base yooyu incha allah donc comme foofu lañ toll ne te am nañ yéene googu am nañ yéene am nañ bëgg-bëgg boobu ba politicien dootu jëlee ci dërëm kenn di ko ko jox nay leer ñun duñu bugg avancer gars yi Sénégal dañ yàgg ci torox tànge de dañu bëgg a avancé ngir yàlla ñi téye sañu tànk nañ ñu bàyyi ñi dem lillahi wa rasuli ñi jàpp suñu tànk ne duñu développé wu duñu dem ndax seeni intérêt rek téye suñu tànk yi ñuy faq di fex fi taxu mënuñu dem ngir yàlla nañ ñu bàyyi am na nay paa am na nay maire am nay sëriñ soi-disant am nay escroc ngir yàlla bàyyi lañ ñu dem réew yi nit ñi rawee dafa sori ñoom réew réew yëpp a ngi ci bëccëg ñun ñu ngi ci guddi ba léegi guddi bu bët setagul ngir yàlla bàyyi la ñun ñu dem waaye dañoo soxla lumière dañoo soxla naaj dañoo soxla jant dañoo soxla air bàyyi la ñu dem ngir yàlla bàyyi leen suñu tànk yi ngeen jafandu rek ne du ñu dem doo leen dem ñu dem ngir yàlla boo leen ko mënul dinañ fi ñuusante ñuus national yooyu ñuusante ba mu saf sàpp nay leer ñuusante ba mu saf ndax da ngeen ñu bàyyi ñu dem par la force doole mbaam kon nag sama gars di leen sant di leen jaar di leen bëggee di leen wax ni le combat continue leçon bi lan la focus 2024 tous pour la candidature de Ousmane Sonko aux élections présidentielles 2024